فالمصطفى ورث الخديم بسره وبهلمه وبعلمه دوم دباي فصم بكون المصطفى قد جاركم خرزاركم مع أهله يا أهل غاي فصم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم ahli ya ah lagai غاي yéen waa jor kañu leen bu baax war ngeen a ngir Mustafa ubla ya mi Mbàkke ja waa ya ahla ñaaxeen ñaaxu leen Seex Mustafa ñaaxaat na leen mi kalaami soga ñaagi ngaay jurbel du leen jarfal ndaxam Mustafa ñaagaat ne bi kalami soga ñaagi ya ahlam ba kol ba kulen Cheikh Mustafa begalat ne bi kalami am ngeen meday darom yo ya moy tuba usuma bi ku fa ta dem na siyaare ji Ya Ahmadumni Muhammadin li Muhammadin yawmal qiyamati santilen sunu way way Syekh Mustafa ya ne khandal dal nga xel wa man nga fi agulon jebal sa bay wa mbat gumba yi bo la fanyi tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay cangay kula daw nga dab ku la fay nga fay le te doonoo fay mboolem jirim yéeg baayo yi yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay yaa yorte naa ngay mag ña bàmba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa yor teraanga yi mag ña bàmba yoraale woon nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraanga yi waa kajoor bawal ay yar sangu buur yi dem làmbaay yaa xam teraanga yi waa kajoor bawal yaa yor sangu buur yi fi daa dem làmbaay wa man ganaar wa mat wolof kenn réeratul yaay tiitaru baa doole yeeg ñi fi sant njaay yaa mustapha abnu mustapha abnu mustapha yowmal xiyaamati rangle no fay médaay miskin ya daa jooy seex bamba ci sasin ferloo nga seen rongoñ ya mat la xooy mag jàqatul ndaw tiitatul réew mépp bég ngir muslukat yi musal nga leen yaa fii sa baay yaa tey lislaam ñu saqi ko ba doxoo yaa tey ñagub lislaam ñu ko ba doxoo yaay jën wu rëy yaa tey mburi di seen mbaar mi naay yaa boole gàllu ya boole jën yel yépp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay yaa boole gàllu ya boole jën ye yépp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay yaa boole dong yi boole bokk yépp yu yor yàlla nañ fi def ndanjaamoo dundal fawi waay taalub mutil yi yaa ko yor yaa tee mu fay مالي خمبل سبتار دو فايسو ندو داي يا نو متبابن نو متبابن يوم الخيامة قوللين جنبر يا واي موسى كلام الله مونون مصطفى وني جروم فكي جولي ماتولاب جتاي موسى كمي موي لابوتوب ميل مصطفى Ya mom juma je xarnu beeg ña gëmoon sa bay musa kemi moy laputo mi Mustafa Ya mom juma je xarnu beeg ña gëmoon sa bay ya murid yi le ya ko yor bambay masin may emprunté ba xelal sa masin du raay gaalug yi le ya ko yor bambay machine may emparante ba di xelal sa machine du raay nur wilayati mooy machine ba wa wasto fuxta rijaala muride yaay seen wéeru waay sag leera fi nun ba leeral waa tugal moo tax ba labbi wàcc ci njurbel naa la kaay sag leera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal yaa tax ba labbi faale wuñ شيخ مصطفى فالمصطفى ورث الخديم بسره وبهلمه وبهلمه دوم دباي فسم بكون المصطفى قد جاركم خزاركم مع أهله يا أهل غاي فسم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم ahli يا أهل غاي yéen ya waa Kajoor kañu leen bu baax war ngeen a ngir Mustafa ubla ya mi jawawalai, ya ahla ñaaxeen ñaaxu siak Mustafa ñaaxaat na mikalami, mi kalaami soga jurbel du leen jarfal ndaxam Mustafa ñaagaat ne nelen bi kalaami soga ñaagi ngaayu ya ahlan ba kol ba kulen Cheikh Mustafa bégalaat ne len bi kalaami am ngeen meday darom yo moy tuba usuma bi ku fa ta dem na siyaare ji ñaaxeen Ya Ahmadumni Muhammadin li Muhammadin yumal qiyamati santilen sunu way way Cheikh Mustafa ya ne xandal dal nga xel wo man jebal sabai. bay gumbai mat gumba yi bo la fany tagal fa no gor ak jigen ya len di ay changay kula daw nga dab ku la fay nga fay le te doonoo fay mboolem jirim yéeg baayo yi yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay yaa yorte naa ngay mag ña bamba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay ya yor teraanga yi mag ña bamba yoraale ya woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraanga waa ak waa bawal ay yar sangu buur yi fi daa dem làmbaay ya xam teraanga yi waa kajoor ak waa bawal yaa yor sangu buur yi fi daa dem wa man nga naar wa mat wolof kenn réeratul yaay tiitaru baa doole yeeg ñi fi sant njaay